ba pare nekk na fi dix milliards at sunu jant bi juddoogul sunu suuf si ñu dëkk juddoogul sunu weer wi ñuy gis amagul dix milliards at waaye ndey jant bi ak weer wi seen ndey muy biddéew bi leen nar jur moom juddu na moom mi ngi fi d'accord comprendre ci dix milliards yooyu moom mi ngi dund dund na dix milliards at soo ko toj soo ko dee ci deewam nag la yàlla dekkil jant bi ak suuf si d'accord xam nga bi bi vidéo bi jant bi mi ngi juddoo ci benn bërëb bu wax la constellation d'Orion la constellation d'Orion benn groupe d'étoiles la benn mburuj la wa sama isatin Ben benn groupe d'étoiles la wax la constellation d'Orion moom mooy bi nga xam constellation bi nga xam ni dafay dafay feeñ ci ñaari hémisphères yëpp maanaam foo nekk ci suuf si mën nga koo gis tim au pôle nord mon nga au sud mon gis dans l'équateur mon nga gis à part ci ñaari hémisphère nord et sud la constellation d'Orion Fof la am nébuleuse nébuleuse d'Orion nébuleuse d'Orion nébuleuse moi mais elle est gaz il xam yu gaz d'hydrogène la rek yu ak poussière vous avez, du judo.

bu fay dem ba créer benn frottement entre atome d'hydrogène ya fa nekk atome d'hydrogène yi bu ñu commencé benn frottement di mbëkkante di mbëkkante eh, muy gën a exercer n'est-ce pas puissance am muy gën a exercer la pression bi ci kaw gaz yi dafay dem ba mujj gi dafay jël benn température frottement bi entre atome d'hydrogène yi day mujj nekk benn température mujj di tàng di tàng di tàng ba si yàgg mu jekki rek commencé benn fusion maanaam léegi dañuy dajaloo te doon ben mu loolu ñuy wax la fusion thermonucléaire des étoiles bu ko defee mu tak rek vidéo yu commencé gis biddéew yi commencé tàkk am ceñeer ceñeer loolu moy ñaari ato bi bu ñu mbëkkantee tay duggante ñom ñaar ñom ñaar bu ñuy duggantee dañuy bayyi ben ceñeeru lumière ben rayonnement loolu moy lumière bi nga xam mo ci ciy génn moy lumière bi nga xam mo moo tax biddéew di tak jant di tak leer am bëccëg am ah loo kon euh, rayon boobu moy jur moy jur jant bi moy jur lumière moy jur lumière d'accord moy lumière bi lumière bi jant bi di génne li tax jant bi am lumière parce que rayon boobu moo tax waaw moo tax mu jant nek luy tak wa jaala shamsa sirajan mhm. mu jant bi nekk flambeau waaye weer mom nouran mu nek lo xam fay refléter la lumière mom nekul flambeau manam weer nekul nekkul luy tàkk waaye dafa melni euh, euh, bulle de cristal boo xam da fay da fay n'est-ce pas fay euh, delo lumière bi da koy capter sànniwaat ko mais ñom ñaar ñoo bokk fuñu fuñu nampé non non weer moy nampé ci jant bi ceñeeru jant bi moom la weer wi jël di ko niital suuf jant ceñeeru jant bi mooy nàmpal weer wi. mooy nàmpal weer wi. d'accord leeru jam ci bi moom la weer wi di jël di ko leeral suuf si. day mel ni weer wi seetu la lumière bi dal ci mu delloo ko. ci suuf si d'accord moo tax yàlla ni la ci bu ak bu ko weer wi dee topp. wa shamsu wa duhaaha mhm. wal xamari. iza talaaha parce que top gi mu koy topp maanaam topp gi muy eh, cajeer yi muy jëli ci jant bi moo tax mu nekk topp gi mu koy topp d'accord donc loolu nag fusion thermonucléaire bi mu amee ci la biddéew boobu nag dund bi mu dundee dix milliards at dundam dafa jeex parce que ni muy fusionné la les mati la matière les gaz hydrogène boobu dafay fusionné nekk l'hélium l'hélium moo gën a diis hydrogène mhm. parce que l'hélium 4 la puis mu fusionné waat ñeent yooyu mu nekkaat leneen de le carbone ñëw après azote ñëw oxygène ñëw le néon le soufre le sodium le calcium le zinc le fer le nickel donc il y a matières après après il y a liquides dense d'accord léegi da fay melni weñ go baxal fer baxal ko acier mu ndox diamant or yi yi nga xam instant yi nga togg leen ba mu nekk ndox. da koy togg maanaam di ko defar nekkagul woon lu liquide mais ni mu koy fusionné lay dem ba nekk liquide. d'accord gaz la woon muy dem ba def ko liquide léegi nag bu nekkee ay état liquide nag léegi day nekk lu diis day diis léegi bul de gaz bul de gaz bi nga xam ne moo enveloppé noyau boobu dafay dem ba dootu ko àttan. day mel ni ci benn bul bul deer xam nga boule d'air. Mhm. nga nga dugal lu diis bi ni nga gisee mu mel luy génn. Mhm. day mel luy wàcc wala boo jëloon benn manque nga ëf ko ba pare nga dugal lu diis ci biir manque bi loolu ni muy mel luy liddeeku di wàcc d'accord ba ni tëf génn d'accord loolu mooy un nova maanaam bidéo bi day mel lu toj day éclaté léegi nag matière lourde boobu nag da koy sànni da koy wuccax ci jaww ji bi nga ko wuccax nag léegi nag acier yu dense yooyu mhm. da nga xam ne fer ngi ci nickel ngi ci lépp a ngi yooyu moo gënoon rëy moom moo commencé nag di tourner ni muy tourner sur elle-même di naaw ci jaww ji di dem di tourner muy xëcc yeneen gaz yi ci boppam ba tàkkaat nekk jant bi ko gën a ndaw nek souci mom mënul am masse bu ko permettre mu gaz parce que masse donc attraction du am comme attraction wu jant bi mais mu li ne gëna dis a les poussières agglomération de la poussière ci kawam di ko rouler proton planète mu d'abord, mu proton planète xam ne noy lepp a di di le non la commencé <laughs> di évoluer

bi defar loolu suuf nag continuer di tourner di tourner di tourner di lëmës di lëmës di lëmës ba mu nekk ay planète tellurique ba mu ay roche ba astéroïdes ay yu ci dal xeer yi dal poussières yi di ci dal muy muy wàccee li nga xamante si mooy li gën di jëm ci di noyau parce que si bi muy soog a pare jant bi da koo naroon a da ko yàqal bi muy jant bi da ko jant bi les solaire éruptions solaires yi euh, injection de masse coronale yi explosion yi muy def dafa doon yàq ce si la ko casser mais heureusement yalla fabriqué ci biir sur ci lu protéger le second qu'on appelle la magnétosphère ah. moy la ceinture de Van Allen moom la mom la wax jaxal naa sama saqfan mahfouz gis nga mahfouz bobu mom hmm. moy la ceinture de Van Allen wala moy le le n'est-ce pas la magnétosphère. moom contre contrecarré ak li jant bi di wax. koy nek ben défense bu ñuy défendre motax wa yalla ñu ñoko ñu ay toit yu koy wot yu koy protéger effectivement daf ñuy protéger ci cañeer ak tàngaayu jant bi waye ay bomb yoo xam jant bi daf koy sanni suuf si moo gën a rëy ëpp na tangay mais ay bomb la ay injection de masse coronale la wala ay sursaut la ce qu'on appelle des sursauts donc jant bi non lay def loolu nag li ko fabriquer ci biir yi dal ci biir suuf si la ko liggéeyee suuf si dafay dem ba yi gëna lire liir nickel yeeg fer nickel yëpp dafay wacc ba ci noyau ba mu former ben boule de noyau d'accord boule boobu nag mi ngi nekk mille deux cent seize kilomètres de diamètre mu nekk ci diggu suuf si. Mhm. mi ngi mel ni nen bi jaune nen bi man la mille deux cent kilomètres mille deux cent seize kilomètres la. de diamètre ci biir nen bi. Mhm. Mhm. imagineel ni suuf si ab nen la jaune nen bi mooy boule de fer nickel boobu am ben benn couche de magma bu ci tegu ci kaw boo xam ni euh, deux mille mètres d'épaisseur la. am beneen couche muy le noyau externe et le noyau interne mu nekk boobu nekk cent mille cent kilomètres euh, cent mille mètres. xam nga yàlla dafa wax ni juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf. Mhm. juróom-ñaari suuf yooyu la yàlla wax moom ngay gis ci suuf si moom la la yàlla di wan. Ah. scientifique yi d'accord nañ am na suuf si ci boppam. Mhm. juróom-ñaari couche la comme ni mu defee asamaan si juróom-ñaari couche. xam nga suuf si asamaan benn bu nekk ak ak ak couleur ak ni muy mel. wala wala yëpp benn comme comme suuf bi ñuy gis ni ñun. suuf bii ngay dox. waaw ay ay ay couches yu ñu tegale la. d'accord comme boo boo teg. teg beneen lëmas ci kawam lëmas tegaat lëmas beneen ci kawam voilà mi ngi mel ni nga jël benn benn bal lu rond nga lëmas ci benn mbàjj jël jël beneen mbàjj lëmas ci kawam jëlaat beneen mbàjj lëmas ci kawam mbàjj yi nag benn niroowu ci sa kolom densité ak couleur ak couleur bi d'accord d'accord niroowu ñu talaay ak niroowu ñu dëgëraay niroowu ñu ay couleur muy teg ay couche noonu nekk juróom-ñaari moom mooy euh, n'est-ce pas partie bi nga muy benn ak les couches continentales muy euh, le manteau inférieur ak le manteau supérieur ak le noyau intérieur ak le noyau supérieur ak bulle de magma bu mu sept couches vous mu ne allah sab'a samawati wa min al ardi yalla bind na ak autant de terre sept couches yooyu mu lay wax ci asman yi thermosphère, ionosphère thermosphère mésosphère extratosphère couche d'ozone bu muy juroom ñaari couches de xamante ni ñom vous ñoo suuf si nekk benn bulle benn bulle de gaz boo xam ne moo enveloppé planète terre mu nekk ci biir ci diggante ñaar yooyu fa la doomu aadama di dund. moo tax muy tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. baarakallah moo tax nag foofu xaas njaga noonu la yàlla bindee suuf si mu continuer ci loolu di rulle moom suuf si lépp su ci jaww ji rek di tourner di dem nag ànd ak jant bi liggéey bi yëpp dafa ànd ak tooguñu benn place. day day wëndeelu. mi ngi wëndeelu ba pare jant bi jant bi di dem. maanaam fu ñu fanaan wuñ fa fu ñu yenn yendu fanaanuñ fa xamal ni aadama ba tey amul fenn fu suuf si nekkoon boo fa la nekkaat tey ba ilaa yawmil haza ba ilaa yawmil qiyaamati amul fenn foo xam ne fu suuf si nekkoon fa la nekkaat jóge na fa dem feneen bu yàgg maanaam suuf si bu fekkee ne ba ko yàlla defar ndar la déparé mhm. booba la gëj ndar boobu ba léegi mi ngi ci yoonu ndakaaru di ñëw donc nag aadama judd na fi ba génn àddina yonent yi ñëw woote suuf si di ñëw rek moom ànd ak jant bi di dem